dal leen ak jàmm seen seen production di ñëwaat ak yéen seen série Babel épisode vingt six sama gars na ko lu doy waar ah, ndax euh, su ngeen bàyyi xel que kii nii di euh, Khalil gars yi nu ñu koy tontu ci commentaire yi bëri na tey euh, commentaire yi am solo la ko gars yi nekk di wax ndax su ngeen bàyyi que ni kii di Khalil mosul déglu soxnaam si ba tax na nag ñëpp loolu lañ doon réactionné woo si commentaire yi lay ndax mun nañ ni musta déglu soxnaam si mosu koo bàyyi nag fi nga xamante ne day expliqué wu sax même bu dee une la moo tax nag loolu la basé wu pour daal di génne si commentaire yi nag quelques images yi nga xamante ne si la ñuy sukkandikoo pour tey euh, génne vidéo tey ji nii comme que ñu ne euh, kii di euh, dafa daal di ëmb ba yàq ëmb bi sama gars yi nag nañ la retourner par arrière xanaa nekkul xalil loolu moo taxoon mu njëkk fee xulal soxnaam si këni moom day jël ay pilule nda daa retrouver ay pilule si saagam bi nag ba tax na nag ñu xula fa xulawu métti mais nag kuy jël pilule nan la mën a ëmbee ba naan day yàq ëmbam bi sama gars yi même bu dee xalil moo ngi dox xelam sax moom nañ ni war na imaginer que loolu impossible jubul ba pare nag te moom lépp lu muy ñëwee ak xër-xër lay ñëwee te lu mës a teey si ay décision moo tax nag chaque jour de retrouver wu seul ndax mun nañ ni instant mu nekk nii jëlal décision bi nga xamante ne du si gaaw dal nag sama gars yi balaa mu ama jotaat jabaram dina woon ni carrément waa famille jabaram dinañ ko woon carrément ñun yoruñu moto bi ngay saagal saagale dinañ ko téye nag ba nga xamante ni carrément perte nga lu am valeur si say bët perte nga li nga xamante ne doo ko gisaat feneen moo tax na sama gars yi Khalil na war a def attention moom euh, du doxalee mukk yëfu gentleman moom daal chaque jour day euh, réagir ni nga xamante ne moom la ko sentiré moo tax nag bi yoon dina ko dina ko coûter cher carrément ndax soo xoolee commentaire yi ñëpp contre Khalil mais nag euh, d'une part tamit gars yi ñu mere kii Leila bëri na trop ndax mun nañ Leila moo teg problème yëpp mais mun nañu jëkkër ji nekk na koo xamante ne xelam bi lu mu gis rek lay gëm te lu mu dégg rek lay gëm moo tax nag pour l'instant dina ko rëcc dina ko coûter cher vraiment si décision bi nga xamante ne moom la jël daal di fase jabaram bi sama gars yi nag euh, maa ngi euh, souhaité ñi nga xamante ne yëpp ñoo ngi abonné si seen bi di leen souhaité bonne deux mille vingt 2024 sama gars yi di ñaar mu nekk année bonheur année euh, joie te tamit lépp lu si waay sopp rek yàlla na ko am si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa jaa ngeen jëf sama gars yi